kan kan mooy gagné élection bi. incha allah bu ñu yàlla mayee dund ba décembre deux mille vingt trois. Hmm. soo ma invité dinaa la diw mooy gagné tel pourcentage lay gagné bi ma ko waxee ci Macky Sall c' quoi un an avant élection gars di critiquer di yooxu bon voilà bii nag li tax mu xaw a mooy c' est différent dañ nekk ci bu bu wuute parce que les cartes sont redistribuées ba pare dafa am yu bari yu flou mais allah. soo ma tegatee pression ba ma ñëw fii en décembre. <laughs> parce que décembre nga may dellu <laughs> si. décembre 2023 euh, <laughs> dinaa la wax kan mooy gagné. Euh. ban pour pourcentage lay gagné kan moo ciy topp naa la ko wax incha allah. merci beaucoup Yérim merci pour waxtaan.